soxna Baali Muntaxa jëf lu baax rek moo ko ñoox ndax ci la dëkk moo tax sax mu taxawal fondation bi dëppee ko fondation soxna Baali Muntaxa di jàppale ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe taxawu néew ji doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ak ci biir réew mi yépp fondation bi bañ ko taxawalee ak léegi daanaka juróom benn weer rek la jaar fépp fu mu war a jaar ba am ay kayitam ci biir weeru koor atum 2021 bi ñu dajale lim bu takk lool ci ak dund gi ngeen jàkkaar lool muy ñeenti junni ak ñeenti téeméeri saako ceeb juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukki bidongi diwlin juróom benn téeméeri saakoy macaroni juróomi téeméeri carton spaghetti ñaar téeméeri karton ngi meew ak lim bu takku lool ci suukar lii lépp di ak dund goo xam ne daf koo fas ne jébbal ñi nga xam ne dañ ko yittewoo moo xam ay néew ji dool lañ moo xam ay kuréel la yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi di Touba wala ci biir réew mi ndimbal gi nag yemul rekk ci dund gi ndax séddale nañ ay chèques yoo xam ne xaalis la ñu jébbal ko ay bërëbu fajookaay ak yeneen kuréel yoo xam ne dañoo nekk ci biir réew mi li nga xam ne moom lañ def ci social bi suñ ko xaymaa ci lépp ci dund geeg koppar yi day ëpp juróom fukki million lii nag di wane dogu goo xam ne soxna Baali Muntaxa dogu na ko ngir taxawu temm ñi nga xam ne dañuy amee jafe-jafe ci wàllug dund loole moom mi dafa jàpp ne moom la war mu leen ci taxaw saa su ne bés bi nga xam ne moom lañ doon séddalee dund gi di journée sociale bi ñu ngi ko amalee ci biir weeru kooru bi dëppoo woon ak ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar ñu amalee ko ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekkee ci ma naan jataay bi nag kilifa yu takk lool teewe woon nañu ko rafetlu bu baax jëf ji nga xam ne soxna Baali Muntaxa da koo dëkkee di jëf ci biir réew mi kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ci kaddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci jotaay bi nga xam ne mu journée sociale bi fondation soxna Baali Muntaxa amal ci weeru koor atum 2021 bi. noo ngi dellu di sant ki nga xam ni yaakaaru murit mën naa bàyyi koo fu ne waaye ci moom la yam ki wax ni wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal baxri zanafkin bila dararin seexu naa si ahmadou bamba xaadim rasool ñoo ngi siyaare tey ñaanal sëriñ tuubaa sëriñ muntaxa basiir yal na fi yàgg lool te ànd ak wér banaal yi mu naalal lislaam naalal ko Serigne Touba ak yéeneem ci réew mi saa borom may ko mu àggale koog sagoom te nu ànd koog moom téeméeri atu tàmbali tey na ci barkeb Serigne Touba yàlla man na ko yàlla na ko defal Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér Serigne Mountakha Bassirou. yàlla na fi yàgg ci te ànd ak wér noo ngi siyaare bu baax mboolem kilifa yi ci jataay bi di ci jiital sëriñ maam Thierno Mbacke mii toog muy sëriñ Koso moom Cheikh Mouhamadou Mountakha moom sëriñ Basirou sëriñ bi ñu ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare di siyaare bu baax sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Muntaxa moom sëriñ ba siiru waaye nag seen bàjjanu bopp daa toog ñii muy soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Soy bu Mbàkke Xaadim Rasuul Mbàkke ni ngi lay nuyu di la siyaare di la jox di sa wàccuwaay ñoo ngi nuyu bu baax sëriñ Fallou Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Basir mi ngi nii toog sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke moom sëriñ Soyibu yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mi ngi nii toog sëriñ Abdul Hakim moom sëriñ Siidi moom Cheikh Abdul Ahad moom it mi ngi nii toog. Cheikh Mamadou Basir moom Serigne Saliou moom Cheikh Mamadou Moustapha moom it mi ngi nii toog Serigne Abo Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mountakha Basir mu ngi toog mi ngi dend ak Serigne Abdou Khadir moom Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Bara Mbacke Khadim Rasoul Serigne Abdoul Khoudous moom Serigne Cheikhouna moom Cheikh Abdoul Ahad mi ngi nii toog feggoog sëriñ Abo Jaxate moom sëriñ Cheikh moom am Amsatu waaye sëriñ Abo moom soxna Maymuna bintu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Ahmaduna Gay mi ngi nii toog sëriñ Jiili Ñang ni kennal sëriñ Touba mi ngi nii toog sëriñ Ahmadou Mbakke mi ngi nii toog moom sëriñ Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou ñu ngi koy siyaare bu baax di nuyu bu baax it mboolem kilifa yi fi teew mel ni sëriñ Abdoul Ahad moom Cheikh Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad moom it mi ngi nii toog sëriñ Bassirou mbakke moom Cheikh Moustapha Bassirou moom it mi ngi toog mboolem njabootu sëriñ Touba gi ñëpp ñëw nañ Serigne Moustapha Fall ca kokki mii nii toog waaye sëriñ Mbuub mi ngi ci yoon yi moom it léegi mu agsi di siyaare bu baax sëñ Mouhamed sàmb soldaaru sëriñ Touba di doom ci soxna Bali waaye nag di taalibe sëriñ Muntaxa Basiiru moom it ñëw na ànd ak sëñ maam Cheikh Anta Baabu ak sëriñ Cheikh Mbacke Samb ñoo ngi siyaare sëñ Fallou Gueye mi ngi nii toog moom it di kenn ci soxna si di waaye lim bokk ak moom lépp da ko jaayante jënde ko taalibe kon noo ngi koy siyaare bu baax di nuyu mbooleem nag njabootu Serigne Touba yi soxna maam say Mbàkke bintu Serigne si Amadu Mbàkke moom Serigne Soy mi ngi nii toog ni soxna Ndey moom Serigne Basiiru Xujja Jeng moom Cheikh Modou Lamine Baara soxna yëmmu moom sëñ Muntaxa Basiiru soxna maam Binta Mbàkke moom Serigne Saaliw moom sëñ Afiya waaye soxna maam Faati Touré moom sëñ Muntaxa Basiiru moom it mi ngi fi ni soxna maam xari Jóob moom sëñ Muntaxa Basiiru mi ngi fi ak mboolem njabootu sëñ Tubaa ji fi teew yëpp mboolem njabootu sëñ Muntaxa yi waa hôpital la Matlaboul Fawzeyni ñoom ñëpp ñi ngi toog waa hôpital Ndaamaatu ñoom it ñi ngi fi mboolem délégation yëpp ñëpp ñëw nañu bu nu duggee ci lim rek daanaka mën nañ fee fanaan te li ñuy lim du jeex monsieur le maire mooy door ak si noonu muy Serigne Abdoul Ahad Ka ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di ko jox di euh, euh, wàccuwaayam Serigne Abou Mbakke moom sëñ Mam moom sëñ Mouhamadul Muntaxa moom it mi ngi nii toog kon nag mu mel nii dañuy daal di jublu rek ci liggéey bi liggéey bi nag dara sababu ko lu dul fondation bii di fondation Soxna Baali Muntaxa ku ne xam na ni leen rek ko tax a jóg. muy taxaw taxaw jaamu yàlla yi ak dimbali jaamu yàlla yi kon nag loolu duma ci guddal bureau bi nga xam ni ñoo sekk fondation bi ñoom ñëpp ñu ngi toog ci njiital Serigne Fallou Mbakke moom Serigne Moustapha moom sëñ Mamadou Bassir Serigne Abdou Khadir Mbakke moom sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Aziz Baara Serigne Moussaïn moom sëñ Moussa moom sëñ Moustapha Bassir. waaye Serigne Cheikh Diop kokki moom itam mi ngi nii toog moom la ñuy waaj a jébbal kàddu gi Serigne Ousmane Thiam mu Serigne Moustapha Bassirou moom it bokk ci bureau bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom leen ko sekkal ci wàllu góor ñi ak ci jigéen ñi kon nag ngir ñu bañ a perdre temps dañuy jublu rek ci liggéey bi xale yi nga xam ni nag ñooy xale yi fondation bi ñoom ngeen gis ñu sol tiset yii ak soxna yu baax yii nga xam ne ñoom danoo bàyyi seen lépp jaayanteeg soxna Baali Muntaxa lépp lu mu nekk ñu ànd ci ak moom tàmbalee ko ci liggéey soxna jaar yëpp ma màggalu Poroxaan màggalu Serigne bu ndigal loo xam ne rek mun Muntaxa Basiiru joxe na ko ñoom dañ ci ànd ak soxna Baali ba jeex tàkk ñu ngi leen di siyaar mbooleemu daara alxuraan yi ñëpp ñëw nañu incha allahu rabbi loolu lépp bu ci kanamee danañ ci dugg. na Khadim Mbuub moom it boo fi teewee buñ ko tuddee tudd nañ mboolem communicateurs yi fi teew waa presse bi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp bu ñu tuddee sëñ Mountakha Ndiaye Gabon production tudd nañ mboolem presse bi kon nag pour bañ a tardé rek dañuy dugg ci liggéey bi waaye nañ ne bala ñoo def dara nañu jox Serigne Koso Mbàkke mu ñaan bu ko defee mu ñaan. ci barke maamam ñu dugg ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin waaye Mbàkke nii ngeen def dafa dal suñu xel gën ñoo rafet rafetloowaat njort sunu digganteeg sëñ Touba fii sëñ ko sa toog fii la sëñ Maam Mor toogoon ak sëñ Fallou waaye bi nu agsee danoo dañu koo daal di bàyyeeg foofa daal di def nii nga xam ni moom la leen sëñ Touba digal. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bismillahi wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñi ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaye laata loolu ñu ngi nuyu sunu sëriñ sëriñ Muntaxa Bachir xalif général des Mourides ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye ñu ngi nuyu sëriñ maam Thierno Mbacke mi nga xam ne tey moom mooy kilifa jataay bi nga xam ne bu ñu ko nuyoo nuyu nañ mboolem ñi fi toog ñëpp di sëti sëriñ Touba kon sëriñ maam Thierno ñu ngi lay jox nuyoo bi nga jot lañu ko mbooloo mi fi toog yëpp. waaye di beneen nuyoo monsieur le maire Abdou Lahad Ka di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu soxna yi fi teew yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar. am mbégte loolu nag tey pour présenter leen tey li nga xam ne moom mooy jataay bi tey dañu fee daje pour présenter benn fondation boo xamante ni soxna baali Bally mun Mountakha moom moo ko créé ñu tuddee ko fondation soxna baali Mbacké ku ne xam na fondation li ko tax a jug. mooy jàppale néew ji doole yi mooy ñu nekk daara yi ak les personnes vulnérables ak les personnes diminuées loolu moo tax a jóg fondation bi nga xam ne Soxna Bali créé fondation bi ñu tudde ko fondation Soxna Bali Mountakha fondation bi nag am na récépissé y a de cela six mois ci biir loolu nag moo tax ñu bëgg a commencer activités yi pour wane fondation bi lancé ko yëgal ko mbooloo mi yëgal ko mbokk yi ñu xam ne création Soxna mu Muntaxa taxaw na ci biir loolu ci la fondation bi am ay dons yoo xamante dajale na ko bëgg koo baaxee mbokk jullit yi bëgg koo baaxee dongay daara yi waaye bëgg koo baaxee it personne vulnérable yi ak personne diminuée ci biir loolu fondation bi ci ay dajale na ba am 4400 saak ceeb yoo xamante bëgg nañ koo joxe ceeb baa ngi nii sama kanam am nañ ci 4400 sacs yoo xam ne fondation bi moo ko dajale bëgg na koo joxe waaye si biir loolu fondation bi aussi am na 740 bidons diwlin yu mu bëgg a joxe waaye yamal si loolu am na 600 sacs macaroni pat yu mu bëgg a joxe encore waaye am na 500 cartons spaghetti yoo xam ne fondation bëgg na koo joxe waaye si biir loolu fondation am na 200 cartons meew yu mu bëgg a joxe. waaye fondation bi yamul ci joxe denrée alimentaire rek mais dafay joxe chèque espèce liquide pour jàppale ñi nga xam ne ñoo ko yàlla lu mel na hôpitaux yi tey ci biir loolu centre dialyse bu bu Touba fondation bi tey dana ko jox benn chèque bu 2 million de francs CFA espèce pour bëgg ko jàppale ci liggéey bi waaye yamul si loolu fondation bi aussi dana jox mu xaddimatul xidma benn chèque bu 500 000 francs boo xam ne da koy jàppale si liggéey bi. waaye yamul si loolu fondation bi dana joxe benn sec bu 500000 francs CFA dana ko jox Touba ca kanam pour bëgg koo jàppale si liggéey bi waaye yamul si loolu fondation bi dana jox poste de santé bu Porokhane dana ko jàppale benn enveloppe bu 1 million cent mille francs CFA jàppale ko si liggéey bi mais fondation bi aussi dana jox benn chèque keres bu Matlaboul Fawzeyni benn enveloppe bu 1 million cent chèque danañ ko ko jox moom it pour jàppale ko ci liggéey bi. mais fondation ba tey yamul si loolu dana jox amicale des malades mentaux yi nga xam ne ñoo nekk fii si Touba ñu am fi benn centre tudde ko amicale des malades mentaux de Touba moom it danañ leen jox benn chèque bu cinq cent mille francs pour jàppale leen ko mais ci biir loolu li ma tudd fi denrée alimentaire fondation bi daf koo séddale ci daara yi nga xam ne ñoo nekk Touba mais yamul si daara yi nekk biir Touba mais daf koo génnee mu génn ci région yi puis daara yi nekk Touba am nañ fi 17 daara yoo xamante ni fondation bi jël leen pour jox leen denrée alimentaire mais ci biir loolu dafa jox ba tey Serigne maamoor mi nga xam ne mooy jiite daara yi dafa yëkkati 1200 sacs ceeb danañ ko ko jox moom mu séddale ko daara yi nga xam ne moom moo koy def ci soi boppam. fondation bi yamul si loolu ci répartition bi génn na ba dem daaree Kokki dina ko jox denrée alimentaire boo xamante ni moom it danañ ko ko jox. mais yamul si loolu dana dem ba daare Fass Touré danañ ko jox don boo xamante si denrée alimentaire yi la bokk mais yamul si loolu danañ dem ba Saint-Louis am na daara yu ñu fay jox mais danañ dem ba Kaolack aussi am na daare yoo xam ne war nañ leen fa jox ba Poroxaan kon fondation bi bi mu juddoo yàggul ci six mois la am récépissé premier acte bi mu njëkk a def mooy lii kon fondation bi yaakaar naa bu ñu ko jàppalee ñun ñëpp ñaanal ko taxawu ko bu déwénee incha allah mën nañ fi distribuer loo xamante ni bii. dana kawe suñu njort fondation bi nag li ma bëgg leeral mooy soxna Baale Mountakha moo ko créé mais moomu ko kon ñun ñëpp jullit yëpp ñoo moom fondation bi kon kenn ku nekk war na jàpp ci fondation bi taxawu ko xam ne yëfi boppam la ndax fondation boo ko déggee ñu ko wax du alalu kenn du alal lu ñu donn alalu mbooloo mi la kon lépp lu ci am ci don wala lépp lu am ci ndimbal ci fondation bi askan wi ñoo ko moom moom nag day xool ci askan wi ci commission bi ñu waxtaanee ñu seet ñi nga xam ne ñoo gën a yàlloo ñu gis na fii ci Touba kat bala ñuy wax jox jàppale kenn dañu war a jàppale ñooñu daara yi ndax ñooñu ñooy wat alxuraan da ku ne xam ne dëkk bi dëkk alquran la ndax Serigne Touba li mu gënoon a fonk ci àdduna mooy alquranul karim kon ñi nga xam ne ñoo taxawee daara yi moom la fondation bi njëkk a jàppale jox leen denrée alimentaire yooyu noonu te loolu yamu si buñ ne daara da kokki ku xam daara kokki xam ne daara jooju daara alquran rek la moom moo fa nekk moom lañ ko sose kon bu ko fondation bi jàppale dafa jàppale ñooñ alquran karim kon si biir loolu mbokk yi ñu bëgg fondation bi ñëpp gën ko bàyyi xel ñëpp taxawu ko xam ne du alalu soxna baale mais alalu mbooloo mi la alalu askan wi la kon moom soxna baale tur nag la ci am mooy mu jiite ko ñu ne fondation soxna baale mais ñun askan wi ñun ñoo ko moom kon dafay baax kenn ku nekk ñun saytu ko xool même bépp denrée boo am wala bépp ndimbal bu am man ko def ci fondation bi am nga pouvoir mën a dem verser ko ci fondation bi ne lii sama asakala wala sama nangam dama ko bëgg a jox néew ji doole bu boobaa fondation bi dana ko jël dex ko ni nga ko bëggee eggale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom parce que fondation dafa yaatu dafa nekk au niveau national ba au niveau international mais fondation bii nag génnagul au niveau international denrée yi ñu joxe lépp au niveau national la jóge dara génnagu ci au niveau international te kon bu ñu ko jàppalee taxaw ko dana génn réew mi dem ba bitim réew te loolu mooy njariñu fondation bi te ku ne xam na ne fondation yombul kon bu ñu ko amee fi Touba mais rawatina li ci gën a particulier nag mooy fondation boo xam ne benn soxna moo ko jiite soxna boo xam ne surtout Serigne di jigéen jiite fondation loolu bariwul luñ koy gis di ko dégg kon kooku wane na bunt boo xamee ne wane na na jigéen ñi war nañ am taxawaay boo xamante ni bii taxawaay bu am solo la ndax alxuraan kat fu mu tuddee góor tudd na fi jigéen te yàlla lépp lu mu wax jigéen digal ko ñu war koo def digal na ko góor digal na ko jigéen kon jigéen ñi ñun kenn ku ne war na taxaw taxawaay boo xamante ni bii waruloo taxaw rek ne man jigéen laa ndax soxna si wane na yoon ndax fondation bi mu taxawal boo doon xool Sénégal fondation yi nga xam ne jigéen ñoo ko jiite taxawal ko bariwul kon loolu dañ ko ci encouragé moom waaye di encourager suñu mbokk soxna yi nga xam ne ñoo fi toog ñoom ñëpp ñu intéressé wu ci fondation bi dugal ci seen loxo dem ànd ak soxna Baali jàppale ko ci fondation bi ñoom ñëpp ñu dugg bokk ak moom liggéey xam naa si biir loolu am na sax yeneen dons yoo xamante ni soxna Baali def na ko ci fondation bi prison bu Njaareem fondation bi jox na ko ay ndogu prison bu Mbàkke fondation bi aussi jox na ko ay ndogu kon fondation bi li nga xam ne moom la defagoon ci ay xayma bu ñu ko xaymaa lépp lépp enveloppe bi ba bisu tey jii enveloppe bi matagu na 65 millions CFA francs loo xam ne fondation bi danga moom moo ko jël joxe ko mooy li ñu joxe ci ay denrées lépp bu ñu ko xaymaa 65 millions francs CFA la ci fondation boo xam ne bi mu taxee matagul 6 mois bi mooy première activité kon loolu bu ñu leen waxee ne fondation yi dana jëm ci kanam war ngeen ko mën a gëm ndax lii mooy premier acte am kon dañu ci woo ñëpp ñu ànd ci jàpp ci ñu taxawu fondation mu dem ci kanam ndax bu demee ci kanam suñu njariñ lay doon ndax lépp luñ ci am askan wi lay dellu si kon ñi ngi jéggalu di yemale foofu kàddu gi di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Mountakha Bachir xalif général des mourides mu yàgg fi téwéer di ñaanal Serigne Sidi Abdoul Ahad ak njabootu Serigne Touba ñu yàgg fi téwéer ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ko nekk ci turam ak santam di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Serigne Ibra Mbacke mu Serigne Mountakha mu jox ko kilifa yi fi teew yëpp su ma waxee Serigne Ibra Serigne Koso Mountakha laay wax ñu bari loolu lañ gën a xam ci Serigne Ibra di nuy kilifa jigéen ñi fi toog ñëpp njabootu sëñ Tuubaa gi kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant ñu ci bari xàmme naa leen mu dana jafe ma tudd tur yi di lim waaye kenn ku ci nekk nuyu naa la nuyub xol jox la wàccuwaay wala yàlla jox di dalal rek ñëpp jàmm ci dëkk bi di Touba ci turu xalifa général des mourides Serigne Mountakha waaye ci turu conseil municipal bu Touba di rafetlu bu baax a baax jataay bi di ko sant yàlla di ci julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa di ci gën a yéemaat xaadimu ci doxalin wi ak lu tool nii te mel nii di nuyu bu baax a baax soxna Bali Muntaxa mi nga xam ne moo waral jataay bii ak jëf ju réy ji mu yàgg def te di ko def ba tey mu ne jëf ji àgg ci dimension boo xam ne mënatul ñàkk ñu formaliser ko mu def ko fondation soxna Bali Mbakke bu Sëriñ Muntaxa dee ko laase tey jii action bi di ci action bi nga xam ne moo njëkk ci li nga xam ne moom lay def ci turu fondation bi muy limu ceeb bu baree baree bari lu romb téeméeri toni ceeb ak diw ak suukar ak yeneen ak yeneen maanaam mu jël ko ci weer wu tedd wi di ko jàppale daaray alquran yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne suñ boroom dogal na ñu ngi ci réew mi te soxla ko waaye di leen xamal rek du mooy li njëkk ci soxna baali yàgg na ci ci lii la dëkk loolu lay dund te nit nag wama sahid naa ilaa bi ma alim naa nit dafay seere li mu xam te yàlla tax lii muy def tey man man na maa seere ne ci la dëkkan ci la dëkk kulli yawmin ci senegal gépp nag fépp foo xam ne taalibe Sëñ Tuubaa nga fa di yëngu ndax réew mi moom lépp njaboot ak Sëñ Tuubaa la tey njaboot ak sëñ Tuubaa gépp bàyyi nañ ko xel am nañ ci moom yaakaar tey moom mi ngi leen di bàyyi xel te bëgg na fu nekk loxo ma mu dem fa muy muy ngir yaatale ko liggéeyam bi nga xam ne moom lay liggéeyal maamam te di ko liggéey ci jawrinam ji nga xam ne mooy Serigne Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te weer lii ma wax defe naa ne waa Touba mën nañ ko seere waaye waa Porokhane mën nañ ko seere waaye waa région yi ci senegal yëpp fépp fu fi daaree alquran nekk wala da kër sëñ nekk fa wala ab daayira fa nekk fa war nga mën a seere wax jii ma wax ndax maa ngi maa ngi xam li xew tuuti ci réew mi te loxom ñaare fu mu dugg danaa ci xam dara ndax nit ña ilaaxa bi jaxasoo ne nit ñaa ngi dem ak a ñëw taalibe yi di waxtaan te nit ñi lu xew danañ ko wax nu nit mel danañ ko wax nu nit doxee danañu ko wax waaye ñu di ko ñaanal daal ci daraje Serigne Touba ci barke Serigne Mountakha maama mii muy liggéeyal yàlla na ko gàttandu yàlla na ko fay ndax ku rafet ab taxawaay la ku am yéene la ci liggéey ku bëgg lu baax la asgor la ab julli la goo xam ne boppam ma ko gënal nit ñi liggéeyab sëñ bi jëndee na ko boppam te loolu man xam naa ci dara looloo taxoon rek ma ne danaa ñëw sànni ci ay kàddu joxe tent ak ak nuyoo ak ab siyaar Serigne Koso mii mu jox ko kilifa yi fi teew yëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi jullit yi ma fekk yëpp. mbokk taalibe yi. mbokk yi ma fekk yëpp. siyaar bu baax bu baax baax baax ci wàllu góor ñi ak itam ci wàllu jigéen ñi ñu ngi sant bu baax di am mbégte ci mbokk yi jotaay bi di ndokkeel lépp ci weeru maag mi ñu nekk weeru koor di weeru barkeel di weeru yërmande di weeru jéggal di weeru boole ci sawar boole ko ci suñu borom léeg-léeg yàlla ci jotee barke seen Tuuba yàlla may ko des na ak jàmm dañu nangu lu ko waaye may nit yoon yoon yoon yu bare bare bare yàlla ko yàlla gannaaw loolu itam ñu ànd moom fi dajale muy jëfi soxna Fatou yi ngay ji mu jëf delloo ci borom bi loolu moom fi bàyyi moom fi soxna Fatou yi def na ko moom fi dajale yàlla def na lu baax moom waxtu ne la baax fu ne la baax waaye rawat na ci weeru koor waaye rawat na it ci dëkk bu tedd bii nga xam ne itam dëkku Sëñ Tuubaa la te lépp luy lu baax fu jege weeru koor yi moom lépp luy lu baax jërëjëf kon alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi sant ci fekk bi ak teewe bi di ko ci jaajëfal bu baax a baax moom sama baay ndax moom yàlla def daal dafa dégg sëñ Mountakha dafa dégg sëriñ bi ndax sëriñ bi moom doomu aadama yi rek mooy yitteem mooy yéeneem mooy pësteem lépp lu muy defal sëñ Tuubaa dafa fas yéene tàmbalee bi donga yi ci seen bopp bu dee ak laabire tàmbalee ci ñoom ba fu mën a yem da ngeen di gën mu tàmbalee ci ñoom ba fu pare bu dee kaaraange wala a doon it mu tàmbalee ci doom yi seen ba fu pare yëpp kon doom yi ngi teel ñu doom yi day teel itam nekk la mu war def fàttewul daal yi fàttewul hôpital yi fàtte woon kenn kon damaa wax ne soxna si dafa nekk rek sëriñ bi ndax mbir da koy a ko mën a jëriñoo doog topp moom itam yàlla def muy ku ci yàlla bu am jikko ju rafet yaatu ay muy ku yaatu ku yéwén ndax lii dafay doog a agsi fii rek doog ko defe nii waaye yaa ngi koy def ci lay mas moom la mas def ci lay dugg ci lay yaw amul xaaral la lay tëral ñu ñoom njëkk ñu jël ak li ba am solo ci alal wala ay bagages yu bëri bëri ñoom ñu ko yóbbu ci daara wala ñu ko yóbbu ci hôpital wala ñu ko yóbbu ci nit ñi ba pare ñu jëlee ñoo xam ne ay woon nañu ko ndax booba de amul benn waxtu amul benn weer boo xam ne dina jël alalam di ko tasaare ci ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo jaar ci ak hôpital yi ak ñi xam ne ñoo ko aajowoo waaye nag mbir muy dox ba ma ne surtout boo bañ xam faaw jëriñ ko tasaare ko ñëpp xam ko ndax tasaare bi am na ay njëriñ ndax koo xam ne wax kenn xamul ne yaa ngi def yaa ngi doon def kon kooku sa jëf bu jëfee ci kaw loolu mu gis waaye jàngale la ñi nga xam ne ñoo ko man ko jëriñ kon loolu moo waral soxna si demee ba nii bu ma agsi fii te toll fii loolu nga xam ne moom la dëkk te mooy mbooloo citoyen kilifa yi bokk taalibe yi képp koo ci xam ne màggal ngeen nii war nga koo def ndax ñu soxla woon si réew mi bari na lool waaye rawatina bii nga xam ne mbas mi dugg na ci nga xam ne liggéey yu bari yàqu na lijjanti yu bari yàqu na nit ñi seen bopp seen pepp nañu seen tànk na pepp nañu bi ak dem bi ak sàkk loolu kon bu ñu agsee ci jamono yu mel nii ku doon def lu baax booba la gën a war tëb kon soxna si loolu la xam moo ak si fii bu yaatal ko ba képp ci war doon dara doon ci dara ni ko seex doom dina léegi wax na daara yi wax na hôpital yi wax na organisation yi wax na Touba ca kanam wax na organisation yi dina dem ak Mbawu ñun ñëpp tuddal leen ngir ñu war a jot seen wàll ci seen bii nga xam ne moom la soxla si bëgg a def tey muy loo xam ne ni ma ko waxee mbokki daal bi yëpp citoyen yi yëpp war nañ ko roy ci moom roy bi nag ñaari yëpp rek la loo ci xam ne am na fa damaa ko sa bopp nga fàttali ko mbir yi fàttali ko way ñëw doole yi waaye fàttaliku ay teget yi waaye itam fàttaliku ay sàkk lu baax yi sàkk xam-xam daanaka ay teget bu fekkente ne dafa woo ba noonu itam dañoo fekk si ko moom solo baal yi ànd ak moom ci lii nga xam ne mu koy def lépp loo ko jox sa bu dugal laa def bi ànd koog yow te yàlla moom xam na lu feeñ xam na lu nëpp kon te lii boole ñu ma sant bu baax bu ñu ci boppam waaye ñu sant boole ñi nga xam ne ñoo doon àndal yëkkati seen alal jox ko ànd ko moom ba yëf yi ak si fii loolu ñu ngi leen di ñaan ñu ko defoon yàlla yàlla fay leen waaye dañ ñaan góorgóorlu ci yoon boobu nga xam ne moom la ñu aw di ñaan itam ñu ko defee ba noppi aw yoon bu baax ko tàggatu doo ko bàyyi man loolu itam dafa ci kanam lii sant tam li nga xam ne ñoo àndal moom ci liggéey bi di ko taxaw ndax kenn ku ne xam ne rek kenn nit mënu dara xalaat ko bu baax ak yéene bu baax ak jikkoon bu baax ak xol bu rafet moom la mën a am di xalaat ak lan tamit di ko def waaye faaw mu ànd ak ay nit ñoo xam ne ñoo ko mën a jàppale ca loola loola nag Euh, sëriñ bi lim na ko léegi mbooloo mu bëri moo xam ne am nañ yéene am nañ parce que bu soxla bari am ñu fas yéene ànd ak moom loolu kenn la ci suñu yëngu ci bopp suñu faal kenn la ci suñu doy bopp suñu musaay kenn la mu fekk soit précis mu taalibe suñu bopp la mu taalibe teg ñun ñëpp ak ñeneen ñun maanaam ñëpp ñu woon ñu sax di ñëw waaye nag bu tee ñoom seen taxawaay daf ci fis dañu am ci yitte lool am ci yéene lool moo tax ñu nekk nii waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi tudd gën ñoo fis gën ñoo jàmbaare ñi nga xam ne dañuy tudd kon tudd moom dafa am lu mu doon jëndal kon daal ci gàttal ñu gërëm ñëpp ñu sant ñëpp ñu gërëm solo baal di ko ñaanal ñaanal ñi xam ne ñoom la ko àndal ci wàllu seen jëf waaye dina ñaanal xam ne ñoom la àndal seen taxawaay. soo ko de waaw waaw di ñaan itam bu ñu ñaanal wax ko ci rek yàlla defal ko mu bëgg mu àgg itam mu àgg ko kon bu ko defee ko ñaanal ko rek yàlla defal ko taw feer te itam mu am jaaroo ci moom ba man koo def nga xam ne noonu la koy defee waaw noonu la kon ci gàttal ñu ko waxee woon bu bu bëree bëri la war a doon waaye nag dina si ko tënk foofu ndax waxtu bi dafay xam te am na ay séddale yu bëri séddale yoo xam ne dafay jël tuuti ci waxtu kon bu boobaa day daal di nekk loo xam ne day gàttal ci kàddu kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp taxaw sant taxawaay bi ak teewaay bi ak fekk bi ak yéene bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. nabina ahmadu nurul anbiya wa nur rasulillahi inna rabbiya nabina ahmadu nurul anbiya wa nur rasulillahi خزينتي اهمل إن أبداي خزينتي عساني أن العاي شنت بشري مكاتب التزر اهملنا ميسرا لما كثيرا لا يزال خالنا ami may barkel nga seli cosaan maam jaaratulaay wursu sellaa dina su takkal ko maam jaara mi ma gis maam yi soxna baali jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi moo yaay xaadimul xadiim bigil na yàlla may karim yiwam wa jaara laa bi jeex jàngal na xarnu bi xaroon na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal leen jafe moo tax ñoom mu di kafe jaaraama jaaxar bi dañuy jublu rek ci remise bi Serigne Fall la ko kokki Serigne Moustapha Fall moo fi teewal kon Serigne Ousmane Thiam mi nga xam ni lu jëm ci wàllu remise bi ci loxoom la ne moo ni wax nuñ koy doxalee Serigne Ousmane nee waa Moukhaddamatoul Khidma prix bi njëkk remise bi njëkk ñoom la ndax barab bi nga xam ne amul lu dul moom te fii la suñu yaakaar bi ne muy Serigne Touba ñoom ña fa ne ne ca liggéey ba nga xam ne ñoom amuñu jot demuñu fenn moo tax ñëwuñu Serigne bi wax nii Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Moutada moom Cheikh Abdoul Ahad moom la bàjjanam ak waa fondation bi yebal ngir chèque bi nga xam ni. moo jëm ca waa muxaddamatul xidma ji ci jumaa ji moom lañ koy jox moo leen koy yóbbul waaye ki ko koy jox nag mooy Serigne Koso Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa kon Serigne Abdoul Ahad dafay ñëw ñi jege si bu ko defee Serigne Koso jébbal ko sëñ su weesoo ndimbal gi nga xam ne moom lañ jébbal mboolem ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo te loolee fondation Soxna yi def ci liggéey bu am solo ngir recenser mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox. am na it ay chèques yoo xam ne lim bu takkul la ci sunuy koppar ñu jébbal ko ay bërëbu fajokaay yoo xam ne dañoo nekk fii ci Touba ak ca Poroxaan ay daara yoo xam ne ci biir dëkk bi lañ nekk ak ci biir réew mi moo xam kokki la ak Kaolack ba ci kuréel gi nga xam ne moo di tuubaa ca kanam ak daayira mu xaddamatul xidma bi yor jumaay Touba ji ak yeneen i mbooloo yu bëri moo xam dalal xel bu sëriñ saaliw tey taxaw ñi nga xam ne dañu amee feebaru xel ñoom ñëpp jébbal nañ leen seenub chèque ci jotaay bi jëf ji nag kawe ci ñoom lool bañ santaat bu baax a baax fondation Soxna Baali Muntaxa di wax jërëjëf Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg te maa ngi ziar ñëpp di jiital ci ziar bi Serigne Koso mi fi teewal njabootu Serigne Touba képp di ziar ñëpp ñi fi teew. ñuy bëral ay kàddu ngërëm ak loo xamante ni lii nii Soxna Baali di def duñ ko wax guleet ñun waaw mat la bul fawsey ni ndax bi mu ñu déggee ñuy yëngu ci social ci jàppale nit ñi ñun ñu jël initiative dem dégg moom it ni muy yëngoo si social ci jàppale ñi ko xamal ñi ko xamul ñun ñu dem wax ko sàkk ci moom ne ko dañoo bëggoon def relation entre moom ak ñun kon ni muy jàppale ñëpp mu di ko jàppalee hôpital Matlaboul Fawzeyni soxna si rafetlu ko nga xamante ni àllarba lañ ko ko euh, alxames lañ ko ko wax àjjuma mu ñëw fa indi fa don boo xamante ni ba ci démb ñun bi ñuy wàcc gàdd séddale nañ ko mboolum hospitalisé yi fi nekk teg ci enveloppe bu am solo kon bu jógee tey jii indil ñu beneen don ñëwaat ne moo ko jàppalee crèche bi ñu def lu dul di ko sant di ko gërëm ci kanamu ñi fi teew ñëpp di seeree suñu contentement ak suñu bég si moom ñi ngi ñaanal liggéey bii muy tàmbali yàlla na ko suñu borom tëyal sëriñ Touba oyofal ko mu tasi ndam ak xéewal ci barke Cheikh Khadim hôpital Matlaboul Fawzeyni sant nañ ko gërëm nañ ko de ma voix jërëjëf. mbooleem ñi teewoon ci social bi nga xam ne fondation Soxna Baali Muntaxa moom la amal ci atum 2021 bi ci biir weeru koor gi ñu dajale ci lu ëpp juróom benn fukki million yoo xam ne séddale nañ ko ci dund ak ci koppar. santaat nañ bu baax a baax soxna Baali Muntaxa ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey fondation bi. ak honorable député madame Aïda Gaye ak madame Mbacke moom di jàmbaar di ku am taxawaay sëñ Mouhamed Samb soldaaru Serigne Touba ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam soxna Ndey Njaay Abo ak soxna Mam bu Touré Serigne Saliou Mbacke moom sëñ Amsatu moom sëñ Abdoul Ahad ak soxna Fama Gaye soxna Adama Kan moom Serigne Saliou moom it de santé bi nekk Porokhane ñoom la soxna Bally Mountakha joxe chèque bii monsieur le maire Abdoul Ahad Ka moo koy joxe ki koy nangu mooy Serigne Bassirou Mbacké Salis moom Cheikh Moustapha moom Serigne Bassirou poste jël si waaye ki ko moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdou Aziz Bara amicaalu hôpitalu Ndaxamaatu ñoom it soxna si jox na leen ab set ku ñuy wax soxna Anta Cissé moo koy jël Serigne Saliou Mbacké mu sëñ Amsa moom sëñ Abdou Lahat moo ko koy jox ñi nga xam ni danoo amee wéradi xel ñoom it soxna Bali fàttewu leen dugg na ci hôpital bi dem na ci prématuré ya dem na ca ña nekk urgence dem ñëpp nee na ñi nga xam ne sax wér di xel dañ koo amee ñooñu fondation soxna Bally Mountakha dana am ci ñoom taxawaay kon ñoom lañu koy jébbal Serigne Abdoul Khoudous mu sëñ Seexuna moom Cheikh Abdoulaat moo koy jox di xaritu bàjjanam di jàmbaar di taalibe di su gor Serigne Abdoul Khoudous Mbacké dañuy woo rek sëñ Xaali Jaxate mi nga xam ni moo fi teewal Serigne Mamor Mbacké moom Serigne Fallou mi sëriñ bi dénk daaray alxuraan yi ci dëkk bi yépp lii nga xam ni moom la sëriñ ni Koso Mbàkke di jox sëriñ Xaalis Jaxate mi fi teewal la sëriñ Mamoor moom sëriñ Fàllu mi nu dénk alxuraan ji nee na seen symbole bi la waaye bu ñu génnee ci biti nag incha allah daara yépp sëriñ Xaalis dana jëflanteeg ñoom kenn ku ne la la soxna jox dana accès ci yow waaye nag ni soxna Bali mun doxaa ni yàlla na fi yàgg téwéer yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla dolli wér. ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ñaanal saaxibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yokk aw fanam ak wéram di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Koso mu jot lil ñu ko kilifa yëpp rek ngir xataayu jataay bi ci turu Serigne Mamour Cheikh Mouhamadul Fadal ak Serigne Cheikh Ibrahima Sy. bi mu ñu booleel ak ñi ñu àndal ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara sëriñ Mamor nee na mu ngi sant bu baax a baax soxna Bali ci taxawaay bi dafa jiital sax sant suñu borom ndax eh, taxawaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha am na ko ci njaboot bi nga xam ne ñëpp yëpp na ne mooy seen kilifa moo leen war a su ko yàlla boolee ak ku ko cay jàppale kon nee na loolu ñu ngi ci sant suñu borom bu baax te defe naa ñëpp fàttaliku nañ daaw bi Covid bi door a tàmbali sëriñ bi taxawaay ba mu ca am loolu nag naka jekk lu mu daan am la waaye ba mu joxee daara yàlla man lépp ba noppi dafa jox ndigal sëñ Maam Moor ne ko ne yëkkati kàddoom xamle ne fu waay nekk te dend ak daara lépp lu mu ca mën na ko cay def nee na kon message boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe woon na ko soxna si dégg na ko baax a baax ndax lii defoon na ko daaw dér defaat ko leen kon sëriñ bi nee na koy ñaanal bu baax euh, ci turu daara yëpp te yaakaar na ne seen ñaan danañ ko nangu euh, ab taxawaayam yokku ndax xam na ne ko ab taxawaayam yokkoo lislaam dana ko yëg sëriñ ba sëriñ Maam Mor mi ngi sant ñëpp di leen wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci jotaay bi mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ci teewoon ci njiital sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Mountakha Mbacke Bachir visité nañ mboolem dimbal gi nga xam ne moo jëm ci ceeb suukar diwlin macaroni ak yeneen yi nga xam ne moo ci aajowu te fondation Soxna Baali Mountakha fas yéene koo jébbal ñi nga xam ne ñoo di askan wi. fondation bi nag day door a judd rek ndax juróom benn weer rek la am te fas yéenewul yem ci activité bi nga xam ne muy social koor gi. lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum social ci biir dëkk bu sell bii di Touba fondation Soxna Baali Muntaxa da cee fas yéene taxaw temm ay activités yu yaatoo yaatu ci biir réew mi ba ca bitim réew lépp jëm rek ci taxaw jaam ñi ak ñi nga xam ne dañ koy yittewoo ngir ñuy bañ a am benn jafe-jafe.